برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان مباشرة للصائم قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لقلبه هنا nit ku or ba pare di jonjoog jabaram Aysatu nag nee na lépp dagat na ko ba mu des pay mi bu mu jege pay mi solo lañ jëlee ci Aysa radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana or beperedi volonté di jonjo ak jigéen ñi waaye nag wax na kay moom yonent bi ne leen man maa leen gën a moom suma bakkan moo gën a moom bakkan ak maanaam yooyu yëpp mën def te du ko yàq ak keneen nag koo xam ne mënoo ko ko ci jéem a sallallahu alayhi wa جابر بن زيد إذا نظر فأما يتم صومه قال ابن جابر بن زيد إن نظر فأمنا يتم صومه باب القبلة للصائم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت جابر لنا شو فكرين يعني؟ dafa xool jabaram ba mën yu génn ci moom mu ne kooku daf ma mën naa matal koram bis boobu waaye loolu nag xam naa ci wuute na xam ne koor boobu dootu wér ak mukk lu may nga dog ba pare fay bis boobu solo nañ jëlee ci aïchatu mu jëlee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xadis jooju solo nañ jëlee ci abdullah maslamata mu jëlee ci malik ibn hisham mu jëlee ci malik jëlee ci hisham mu jëlee ci baayam jëlee ci aïcha radiallahu anha aïchatu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na foonanteeg jabaram te mu oor mu ne aïchatu nag ba mu nettalee pare dafa حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخميلة إذ حبت فانسللت وأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم سنن جلي شي أبو سلمة وجلت زينب بنت أم سلمة jëlee ci yaayam mi nga xam ne soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon naa man ak yonent bi ci benn dër dër maanaam fu ñu def ay ñax yu rafet nga xam ne dafay féex mu ne lii dal jigéen dal ma maanaam ma gis baaxi jigéen mu ne mu rocceeku rek ci càngaay li ma càng sangoon ak yonent bi daal di jël sumay yére yi mbërëg maanaam yére yi nga xam ne jigéen ju mbërëg moom lay war a jëfandikoo mu ne yonent bi ne lan la lan mu la dal ndax dangaa gis baaxi jigéen ma ne ko waaw mu ne ma dem jël yére yooyu sol ko ba pare ñëw duggaat ci dër bi nga xam ne ci lañ nekkoon maa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye daan nañ sangu man ak moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn ndab mu ma te fekk mu ngi or moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam والإمسال الصائمين فبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا فقال أنس الذي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم فقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره لا يبلع ريقه فقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفتر قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به lam yara anasun walxans walxasanu wa ibrahimu bi kuhli li saaimi basa nit ku oor ba pare di sangu ak ndox mu sedd ngir seddal yaramam ibnu umar radiallahu anhuma mu ne dana tooyal mbubu sol ko ngir féexal yaramam ci tàngaayu koor te fekk mu ngi oor mu ne chaab yu itam daan dugg ci xamaam yi yooyu ci réew arab yi la am di ci sangu te fekk mu ngi oor ibnu abbas itam ne na mos cin wala dara ndax xoromam ëpp na wala ëppul wala sukaram ëpp na wala ëppul mu ne dara nekku ci xasan ne na gàllaxndiku itam pour seddal sa gémmiñ dara nekku ci sedd lu itam ci ku oor maanaam dem fu sedd ngir seddal sa yaram mu ne dara ne ko ci ibnu Mas'ud ne na kenn ci yéen bu xëyee oor bu xëyee na diw boppam peñe ko na defaru daal bu baax loolu yàqul ci koor dara anas radiallahu anhu wax na ne amoon na mbalka moo xam ne mu ne def ciy dugg daf koy feesal ak ndox dugg ca ngir sàggal yaramam ci tàngaay koor fekk mu ngi oor mu ne solo nañ jëlee ci yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam ne daan na soccu fekk mu ngi oor ibnu Umar nag ne na ci oor buy soccu na soccu ci jël benn bëccëg bi ak ca mujj ga waaye bu mu won itam loolu yi nga xam ne ñooy génne ci gémmiñam ata wax ne su fekkee ne mënta tee lor yi ba won ko mu ne waxut ne dog dog na waxut ne koor gu yàqu na waaye daal xaj na sikka nga fa daal ibnu sirina itam wax na ne soccu dara nekku ci même su fekkee ne socc bu tooy la sax mun a dara nekku ci ñu ne ko ah socc bu tooy dafa am caf nga mu ne leen ndox mi am na caf nga te yaa ngi koy galaxandikoo te yàqut sa koor kon socc bu tooy mënta yàq koor anas ak xasan ak ibrahim ne nañ mën ngaa tusurgalu sax yàqut ci koor dara moom loolu yëpp nangu nañ ko ne nañ dara nekkut حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ba حديث جيوي ji wéyoon moom lay waxaat ni ba tey mu ne solo nañ من يرنتبي صلى الله عليه وسلم فجر دانو كو جوت تي ويرو كور تي فك ميغي امي جنبا جو خامني سانغو غور كو تدو جنبا جو خامني تي كيونت لا من واي دا دان سانغو ريك دال لي اور بيسبو دا كو خال كور صلى الله عليه وسلم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصلح جنوبا من غير من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ba tey solo jëlee ci abdurahman ibn xaaris ibn hisham mu ne dégg na aboubacar ibn abdurahman mu wax ne man ak suma baay dem nañ ba dugg ci aïchatu jabar yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ngir aïchatu wax ne maa ngi seede ne ci yonentu bi ne daan na xëy ame janaba yoo xam ne ci sëy la ko amee te duut géwént waaye dafay sangu rek daal nañu itam ci ummu salama nettali leen na amee janaba fajar jot barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy